te euh, am sa yeneen naataango yoo xamante ne euh, ñu ne ay seetkat lañu ay damaa mer damaa mer génne drapeau bi ko drapo la ilaha illa allahu keroog damaa mer bu ngeen xoolee ci sama vidéo yi biñ ma waxee ne diw de nee Sénégal du ma sa am coupe dama ne leen billahi wallahi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 safara lañ taal mu doon coow maa ngi sotti ndox